d'accord Cheikh Ahmed Cissé fan yi ñuy génn yaa ngi génnoon def euh, ab déclaration def sorti wax que ne kii di euh, Sadio Mané bu ñëwee sees la nga faj ko te jii ñu gis ni Sadio Mané forfait nañ ko lan nga mën a wax ci loolu ak lan ngay xaar ci équipe bi ndax yaakaar nga ne si sa baatina euh, équipe bi dina mën a indi coupe bi sans Sadio Mané. non man suma baatin moom du pour équipe bi pour suma bopp la euh, ak ñi ma neex man taluma équipe bi ba di ci def baatin li ma mën mooy jënd mayo bu yooku jotee ma yooku bu taaj jotee ma taaj bu match bi jeexee ma fay télé bi parce ñoom dañuy wax ne Sénégal leen fa teewal mais dañ leen di jox bonus hôtel bu ñuy tëdd Sénégal a koy fay dirigeant yi hôtel bu ñuy dugg ak avion yi Sénégal yaa koy fay man na comme fayal luñ ma aw ma ci mën naa jënd mayo rek yooku yem ci. benn Sadio Mané forfait nañ ko looloo gën ci carrière am Karambodj de forcé woon dem coupe du monde na ko yàqal carrière am donc Sadio am na conseil yu baax def na li mu war a def duñ ko forcé lii la yàlla dogal ci moom dugg na ci histoire du Sénégal te dootul far donc yàlla ko yàlla defal jàmm may ko wér bu dul coupe du monde bi beneen coupe d'Afrique am xam nga Sénégal miin na ndam léegi pourquoi pas ñu défendre suñu raaya bi 2023 bii la ñu ngi si 2022 fin bi 2023 la Côte d'Ivoire ñu dem jël ko ñibbi day gën a neex Sadio bu jëlee Ligue des champions. xam nga ligu Allemagne moom du lig mm. Bayern mooy jël lépp mën na jël ballon door ballon d'or moo ëpp coupe du monde ci moom personnellement mm. waa te Sénégal mënta jël coupe du monde parce que amul équipe am amul organisation amul xaalisam tolloogul niveau bi mais nag ci karaama mën na koo jël mm. comme ni Grèce jël Grèce jëlee woon coupe du monde 2004 coupe coupe d'Europe 2004 waaw comme du monde 1966 1966 donc yooyu mën naa am mais ci normal football ñu waxtaanee ko te génne far ak supporter Sénégal mënut a jël coupe du monde franchement mënu ko mais nag ci ñaan yàlla ak dogalam Sénégal mën na teglante téeméeri coupe du monde loolu dogal yàlla suma xalaat ak suma gëm football fooguma Sénégal gagné benn match waaw suma xalaat laa wax ak ni ma liiree football su Sénégal amee match nii sax neen ko jubilé mais nag yàlla naa fen Sénégal am ndam ndax moom moo ma gënal d'accord ñu bàyyi la nga tàggatoo Cheikh. su fekkee nga neex ma man ma neex na jërëjëf soo ma su ma la neexul nga muñ te ñaanal ma yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.